sung yaa xew yow yaa ngi bégal xale yi sama alal la yang bëgg daa ngeen xaar daa bu ne ne déglu leen. yow kat yaa ngi dama ko bëggee. alhamdulilah bëgg nga ko ku am talent. xale bu mën way bëgg nga ko xew. ku xew ci jamono. ba pare lu ma neex si moom dafa am yërmande si jigéen. ba xam boo ko jegee lu muy wéyee nga xam ne kii lu muy wéy ci biir xolam la ko tibbee. maa ko tibboo doo ko ci dara de. waaw bu jara séeri kii bu amul yërmande tooñ nag xam nga ndongo daara moom boo ko nekkee faaw sa xol toj. waaw mais xale jigéen ñi seen ma ne kontaane naa la. tey ñi ngeen def ci année. waaw gis nga. seen toogaay rafet na macha allah. Ah, gis nga ma dama ah, a balaa lay jëm. leer na ma yàlla ni surprise la lay lijjanti ci benn. nomaatee moo ëpp. waaw gis nga yëpp a ne. ne Bakka ñoo bokkoon même kër Bakka taalibe la doon yelwaan sama maam daal ko fekk ci koñ bi muy taxawaale xottu làmp bu nekk mu wàññi ko bàyyiwul tàndi biir bàyyiwul xumbal sumb moom waxaalew moom bu mu dégg gaynde am na tey mu dem wëy fa te loolu nag dañ ko doon aaye dëgg neexul jaal na ma daal muy sang sama xaru maam yi di leen sang sama maam bu ko bu paree sang nee na day dem jàngi daara sama maam jël 100 francs jox ko neexalee ko moo daal di dem jàngi. moom baxa te nag temps yi ndax de xam nga léegi daa yokk loxoom daa ëppal te fuuy. Hmm. léegi romb nañu. Hmm. waaw Pikine ginnaaw raay déggoo ma ñu bokkoon ko ñii léegi nekk ma ngay dem Amérique Canada Angleterre moom daal wër àdduna wërngal ko bàyyiwul fenn fépp lay dem. kon yoo ba kañoon bu baax li nga waxal ne yëpp. waaw. Hmm, am nga ay preuve ci moom. yow ba xam ne tëj dëkk bi foo nekk. moom de nee nañ mi ngi amee. daal bëgg naa ko séeri nag sa sañse neex na ma tey. asalaamaaleykum. noonu day naa ko daan jël. façon naa di góor yi takk na ma léegi ku mën da ngay war ku ko mën da ngay toog. maa daan way naan bi ma jooy happy birthday ma sister joyeux anniversaire. mais maa ngi kontaan. ma chérie ah. yow lépp loo bëgg rek am na laa la wax. ma jàmm si ma ñëwul dama. kii ndekete lii doon ma ah, jàmm de. yaa ngi yëngal loo bëgg. vraiment lii nga bëgg. Ah? parce que xam naa ne tey su ma ko indiloon tey parce que du am jàmm. jàmm du sama sama jeena bu bees bi dafa neex. <laughs> moom lañ doon enjoy eh, ba tey. Eh, yow yaa war a tëj sa làmmiñ nga mel ni seetkatu tubaab yooyu di seetee kat yow lan la yow li mu fi wax léegi léegi lan pour lan kii toog fi nga dëmm ray la jaala la. bu ma sa xeetu di ko noonu nga. Eh, eh tëj sa génn. dara wax dangaa pour wax yow. may ma yow maman Alice. Iya, baka ñaamu ngi hmm. ni de ak li ko waxal yëpp lii bu la gàcce gi bu la dalul woon tey man ma rus yow fii nga nekk amul loo waxal baka naan baka seen kër la doon nekk dafa fecc kóol la rek nii rek ngeen di def yéen star yi bañ nañ sax dund ndax genre yu mel waaw maman li nga wax sànq ci bakkan la wala du dëgg song génn ba bi waxuma génn ba bi a ànd ak trois personnes dama li nga doon wax sànq naan taalibe la woon mooy sànq xarit seen kër sa maam di ko may ay ñaar dugg muy taxawaalu ah léegi faaleetu la loolu la wala du dëgg. kon sànq dama ma gis nga àdduna foog naa ak yaakaar naa mooy indi rus naa ak dama am kersa bàyyi leen di sosal artistes yi te xamaloo leen dara. pourcentage teg tey gi la daal. donc de gis nga maman yow benn affaire laa koy xam ne ci yow waaw c'est vrai. non ni mu toll yow sa participation bi xam nga la la. ay sos. loolu nga nar a jàppee saa am. maman kii dafa am xol kii dafa am kii dafa am jabar lépp lay wax ci moom doonte sax noonam la da ngay wër di yàq mais seetal li mu def li mu ko wax. pourtant soo jéem a baam bi daa neex de. non waxtu bi loolu dama ne la li ngay wax amul jiw koo xamal. dama koo foroon ci ni mu. noonu rek wax dëgg yàlla xam non man kay maa ngi bëggoon laaj kii kan la sax. ngeen laay laay laay. man moom si seen fa la jaar. waaw demal nga sëy <laughs> laa la xam ne. foofu nga ko xamee. man maa ngi bëgg ngeen laay laay. déggul mu wax. parce que lii nag doy na waar de. ah. ah? te man nag réew mi nag de yéeme na de fan yii nga ñëw. Sénégal a changé. yéeme na loolu de parce que boobu ba léegi euh, ñun li lañ de li lañ li lañ jànkuwanteel. te nit ñoo xam ne du ñu xam loolu bu baax dañuy dégg rek mais lu nekk nañu fekk ci teeru artiste yi xam nga lu nekk dañ leen di waxee waaye nag boo ñun suuf yi ñun dañoo war a ñun dañoo am njaboot. xam nga dañoo am ndey am baay xam nga am njaboot boo xam ne vraiment bëgguñ dara di dégg dara loo xam ne danañ nax kon lu mel nii ñoom war nañ ñuy sóoraale dëgg euh, waaye nag dafa comprendre parce que jigéen la euh, jigéen moom euh, ñun mënuñoo dem sans suñu jigéen. wax daal xam nga lan la kii sama anniversaire bi ma ko yaakaar. Eh, kii gàttal du ko fekkee sax. na jóg na jóg kay jóg génnal fii.